askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la fanaane lu def faxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilah yi jàmm enquête yéen a kaay lañ koy xëy daal di dooree mu xëy xibaar ñu nu ñu nag de kii nga xamante ni moo di Maguette Diop juge ba de teg gi nañ ko ci coowul mbirum Khalifa Sall ak atte ba yéen a bi ni ñu procès bi ni ki tey ñetti fan ci la fas yéene daal di a kaay ñu xamal ni ñu daal audience spéciale la ñu fas daal di amal waaye ci yoon ak yéen bi dellu di xam na li daal président tribunal grande instance bu Ndakaaru de ma ne ko moom la ñu fas yéene daal di tabb duñ te yàgg de tegal ca wet ga laas yéen a kaay laas ci wetu bi ni ñu koo koy wuyoo kan mu ni maag mu ni Malick Lamotte yéen kay bi dellu de xam ne ni daal dellu nañu mbul ca mboy ga wala déet loo ca mënti dégg daal ñu ne ah dossier Khalifa Sall ngoog de ñu ne nag IRH bi de moo informé ñu daal di génne nag Maguette Diop yéen kay bi ni procès bi de ne ko ah xam dañ ko daal di renvoyé à une date ultérieure am déet loo ca mënti dégg daal càkkutéefu Khalifa Sall l'observateur indi na ko ñu caisse d'avance gee ko waral ñu dugg nag ma ne ko ci caaxi Khalifa Sall yéen bi di ñu xamal ni ñu Khalifa moomu sax de càkkutéef nga mu bëgg moo di lan ñu daal di reporté ma ne ko ñaari weer avocat ma ne ko adressé nañu demande ba doyen des juges yéene bi ni ñu coow li de am na lu nga xamante de njawa nga say wéy di desu xambin ba léegi de waaye nag défense bi de bëgg nañu daal di cité ñu ni nag une soixantaine de personnes Moustapha Niass ca biir Idrissa Seck Amadou Ba Ousmane Tanor ñu ni Malick Lamotte mii de moo fas yéene daal di présider audience ba le yëral yéene bi am ca lu la leer 24 heures ni ñu ça passe ou ça casse mënti dégg daal ginnaaw 24 heures l' évidence nee na xalifa seul ma ne ko gagnant xalifa yaay gagné de ñu ne yaay ja nag de ma ne ko tuur na ay rangoñam yaay xalifa rax ci dolli nag la muy ñaan moo di lan ñu daal di libéré doomam ji la tribune yéen a kaay affaire xalifa Sall Alioune Sall dugg na ca ndaxte bind na moom mi nga xamante ni moo jiite AMS di association des maires du Sénégal bind na nag maire ba ca Paris yéen kaay bi dellu di xam le ni daal lam ko daal di wax moom Anne Hidalgo yéen a kaay bi xam le na ni daal mbirum xalifa Sall séntuwu ko ci woon bu dugg ko yeneen yéen bi am ca la leer booba la jamono nag màngaanuk politique gi transhumance gi yoroja di ñu xamal ni ñu kii nag ma ne ko di saala Njaay la mu def ak kaw tëf la le quotidien yéen kaay xamal ni ñu xalifa yéen ndakate yoo Aminata Mbengue Ndiaye nee na xalifa moo tax nag Ousmane Tanor Dieng 2007 2012 mu daal di perte yéen kaay bi ni ñu Tanor xam ne na ni nag ñoom nag ñoom ñoo di ce sont les yi nga xamante ni ñoo nekkoon ca Kaolack te ñoom ñoo daal di porté woon plainte loole nag bokk na ci coulisse yi nga xamante ni yéen bi génne na ko nag ci mbirum xalifa Sall ginnaaw bañ koy dàq ak ñamu nga xamante ni ñoom la àndal ci bureau

ci Ansoumana Danfa bu benn bokk yaakaar nee na transhumance gi di màngaan gi nam ci wàllu politique gi moo tax nag CREI bi ak OFNAC gi ma ne ko liggéey ba ñu war a def dafa daal di des de lajj lañ ci daal di gis le témoigne mel ni ku cay indi ak ceede di ñu xamal li ñu moonte de discours bi nga xamante nii moom la jiitu réew mi jébbal nag ma ne ko ñi nga xamante ni ñoo di askanam bi di askanuk Sénégal am na luñ ca lal ca suuf te leen waxu ko de yëral bi am ca lu la ñëw na ci ay nomination ay poste Sénat OFNAC justice médiature bi ak ma ne ko leneen Alioune Tine nag de ma ne ko dal na ci kaw nguurug Macky Sall gi desalu ko dara de les ko yéene bi ni ñu Alioune Tine ci ay leeral xam le na ni daal boo ko xoolee ba ca biir ma ne ko bari na ci lenn lu nga xamante ni ak ak yelleef doomu aadama ñu daal di koy salfaañe joggaaje daal di nag ma ne ko dem ci cour des comptes gi nga xamante nii ak patt pataaral la nu muuma of nag gi nga xamante nii daanaka ma ne ko xaroo ko dese yëral yéene bi am te lu la leer xel daal di ci tee HCCT bi mu daal di coy wax nee na ginnaaw Diouf kii di Wade nii ki tey jii nag la ñu gën a gis nag mu gën a yées ak ayuk Macky Sall gii yëral yéene bi am te lu la leer kii di Alioune Tine libération yéene kaay ni ñu am na lu yees ci mbir mi nga xamante nii moo di mbirum Karim Wade comanaa ko googu nga xamante nag de lu toll ñaar fukk ak ñeent ci ay compte bancaire yu nga xamante visé nañ leen ñu ni le di fukki fan ak juróom benn sénégalais yi atum 2018 dañu fa di délibéré ca loola di ngeen ca am lu leen leer mbirum terrorisme ci libération yëral yéene kaay bi le soloy ñëw nag ci désenclavement ba am ca daal di jëm mu daal di yomb ci ñoom big jëm naka ma ne ko ci Podor googu lañ ko fas yéene suqalee record ñëw ci Lamine Sané Werder Bremen ca Allemagne mu xam le ni nag moom apt na fi mu toll nii ngir daal di dellu si waat ci sélection bi stade yéene kaay daal di ñëw nag ak ki nga xamante ni moo di Salif jaaw yéene bi di xam le ni daal moom mondial 2002 bi ñëwaat na ci naam waaye nag di xam le ni sénégalais yi ñoom li ñu war a def moo di lan amuk kóolute nag ci ki nga xamante ni moo di Aliou Cissé yëral yéene kaay boobu di stade am ca lu la laar suñu lamb yéene kaay ñëw ci Tapha Tine di xam le ni daal fi mu toll nii ginnaaw bi mu jógee ci Yékini Junior xam leen na ni daal kii nga xamante ni moo di bombardier digganteem ak Eumeu Sène lamb jooju saful suukar saful xorom suñu làmb yéenekaay ba tey ànd ak tafaatin di wax nag ni moom ginnaaw bi mu génnee ci loolu fi mu toll nii ah ñoom ñooñu neenu seen lamb joojoo la bëgg nag kuñ ko ca jox mu daal di koy nappaaje zoom info yéenekaay bi ci xëtam bu njëkk mu daal di àddu nag ci li nga xamante ni moo bokk ci yenn médias yi nga xamante ni ak suux la ñu daal di gis ci ñoom bi nga xamante ni moom la ñu gis nag fayit ga di Nouvel Horizon yéenekaay bi jàpp ni daal am na lu nga xamante ni laxasu na ca suuf te war nañ ko daal di xoolaat ñu ni Bamba Diallo nag la mu def kenn du ko wax kenn noonee ma ne ko yéenekaay bi dellu di fësalit ab rendez-vous ak kawtef gu nga xamante ni mi ngi ci réew mi ñu ne ndakaaru gii di dalal nag ñu ne ab rendez-vous international bu jëm ci wàllu franc-maçon yéeni bi xëy na naat koy xam le de ni hôtel ba réservé nañ ko ngir nag ko circonstance yàq mbir ma na muy tëddee yëpp rel yéen kaay bii di zoom info am ca lu la laar ñu yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari bu ko kenn ngëpp na ko ñëpp coom as lëf ci yéen kaay jaa jëf